dikkati na Sénégal de fi mu ne moo tëggoon itama ñu koy tëggee ci boor bu ne ci bitim réew la Soleil yéene kaay ne moo taxit nguurug Sénégal de sol nab yére sapeur pompier ngir fas yéene fay gépp daay goo xam ne bitim réew ubbi nan ko ci réew mi di lakk kay réew mi jëx-jëxi ñuy wax yoo xam ne maar day taali ci réewum Sénégal la Soleil naan na gouvernement gaa ngay leeral sursoi naan man bugaan gay danee nga naan leen cam te naan ci la mandat yéene kaay lan moo dal laa bëgg xam mbaa du réew nag dëgg-dëgg dafa dëgg liggéeyu jàmbur ci 24 heures yéene kaay muy xamle ni kàddu yi ñu yëkkati démb waroon na ñaaw na du dëgg le soleil yéene ne ko déet gouvernement gu Sénégal kay moo doon andi ay gindi ci lan moo tax nag ñu coupé signalu wal fajri bugaan géey dani ci tribune yéene naan ko dara da ngeen koo tëj ndax da ngeen la nga xam ne neen télévision yi artu woon ngeen leen ba sañatuñ koo wane te ko wane ngeen tëj ko niki ni ngeen def wal la le soleil yéene kaay naan koon gouvernement gu Sénégal nee na feetuk tabaski ji mën naa neex ña ngay joxe assurance ci loo xam ne askan wi bëgg nañ ko ñu daal di koy matale boole bugaan géey dani ci l'indépendant yéen kaay naan kon tabaski ren gii la di wax ba mu jaar yoon dama koo gisul te la ngeen wax ne tabaski bi dana jaar yoon daf noo yayul waa lu tax waxu leen ci xëyu ndaw yi lu tax waxu leen ci askan woo xam ni sonn na ndax njëg yu metti lan moo tax waxu leen ci location bi ngeen ni da ngeen koy wàññi furaas le soleil yéen kaay naan kon bugaan mayel gouvernement gi mu wax ndax wax na ci manifestation yi nga xam ne am na gannaaw ba ñu tëjee Ousmane Sonko bugaan géey dani naan leen tëjub Ousmane Sonko googee la ngeen ci wax dafa lamber ñi nga xam seen xam-xam màcc na ci ñoo cay wax waaye këram ga ngeen ko tëj tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon si te kër góor gi ngeen ñu ndax génn ni suñu njaboot gi dematuñu dikk njabootu Ousmane Sonko ngeen xoqatal leen bundu xatal leen ci réew gi ñu dëkk kenn koo xam ne nangu na dëgg laa ne du nangu lii ngeen xam ne teg ngeen ko Ousmane Sonko Le Soleil yéen a kaay naan kon gouvernement gaa ngi wax ba tey nee ñu dañuy ubbi ab enquête judiciaire ngir xam le dëgg-dëgg lan mooy yàqu keroog ba nga xam ne manifeste am na ci réew mi Amadou Ba naan toppit ña nga xam ñoo ko sabab Bougane Gueye dana kaay naan leen ubbi leen ab enquête ci ñi nga xam ne faatu nañ ci manifesté yi ba nuppi ubbi enquête ci ñi nga xam ne dañoo yéegoon ci pick-up ànd ak takk der yu réewum Sénégal ñoom ña nga xam ne ay civil lan di tiire ci askan wi yor yor yéen kaay naan na gu Sénégal tey ma fàttali leen ñeen fukk ak juróom benni ndaw yi nga xam ne faatu nañu te ñoom ñëpp nag ci diirub ñaari at yi la ñu faatu ci réew mi te coowal Sonko ak Adji Sarr bu xun ma la moo leen faat yor yor naan kon ñaar fukk ak ci doomu aadama faatu nañu diggante benn fan ñetti fan ci weeru juin limal fàllu seen faatu na Ousmane Badja faatu na Souleymane Sano faatu na Lansana Sakho faatu na Basirou Sarr faatu na El Hadji Mamadou Sidibé Cissé faatu na ñu gën ko xam ci Boga Mor Ndiaye faatu na Khadim Ba faatu na Babacar Samb ñu gën ko xam ci Mbay faatu na Doudou Diène ñu gën ko xam ci Petit faatu na Babacar Diémé faatu na Ibrahima Drago faatu na Mohamed Silla faatu na Ismaïla Traoré faatu na Babacar Mbay Silla faatu na Babacar Ndoy Mbay Ndoy faatu na Tamsir Cissé faatu na Abdoulaye faatu na Mame Balla Sarr faatu na na na Souleymane Danfa Sarr faatu na Seydi jaata faatu na Oumar Sarr faatu na laataa ñoom ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi faat nañu Alioune Bodian fukki fan ak juróom ci weeru mai 2023 ñu faat Pape Amadou Keita faatit Ismaïla Diédhiou fukki fan ak juróom benn ci weeru mars faat nañ Mamadou Korkaba faat nañ Gora Diop fukki fan ak juróom ñaar ci weeru juin 2022 faat nañ Alexis Abdoulaye Diatta faat Serigne Mame Sankhé faat Idrissa Goudiaby ñeenti commerçant daal di faatu ci Colobane mars 2021 fukki bakkan ak ñeent rod na bu na ama simpa sagna faatu ca Masariñ Gueye faatu ca Alassane Bari faatu ca Baye Cheikh Diop faatu ca Pape Sadio Camara faatu ca Chérif Abdoulaye Mané faatu ca Famara Goudiaby faatu ca Modou Ndiaye faatu ca Pape Sidi Mbaye faatu ca Mansour caam faatu ca Cheikh Ibrahima Koli faatu ca Cheikhouna Ndiaye faatu ca Cheikh Wade faatu ca Moussa Dramé faatu ca Le Soleil yéene kaay naan teewul gouvernement gi nee ñu daañu ubbi ab enquête xool dëgg-dëgg ñan ñooy déstabiliser réewum Sénégal xool nag coow yeeg faatu lan moo ko sabab bugaan gay dana ci turbine yéen a kaay naan kon yéen a seen njiit yéen bëgg xool ñi ngeen di àndal ci élection yi waaye yéen ak seen njiit yéen a bëgg dàq élection yi yéen ak seen njiit yéen a fi bëgg a sampuwaat 2024 duñu ko nangu gouvernement gi ci la soleil yéen a kaay naan vidéo yi nga xam ne ñi ngi gis waa bitim réew di ko wane daanu ci ubbi ak enquête ndax nag am nay montage bugaan gay dana ci turbine yéen a kaay naan leen montage u lan la ngeen tere télé Sénégal yi wane ko la bitim réew wane benn montage amu ca ay nervi ñoo fi nekk di tiira wi le soleil yéen kaay naan naan kon en tout cas premier ministre amadu Ba weddi na la nga xam ni mooy négociation diggante Ousmane Sonko ak président Macky Sall Ismaïla Madior Fall garde de Sceaux naan Ousmane Sonko day bés bu rafet la ñuy xaar ci moom maanaam juge bi daal di bind kayit bi nga xam ne moo war tax ñu jàppi ko moom Ousmane Sonko Vox Populi naan man ña ngay xaar jàppam réew mi ko di jee naan kon te du yàgg ndax gaa yi wax nan ca Walf ko di jee naan kon mbaadu coowal Ousmane Sonko nag ko nar a àttewaat bugaan gay ci yéene kaay bi naan leen la gouvernement wax ma ne la ko am nopp gar mi xam du dëgg terewul gouvernement gaa ngay xupp l'info yéene kaay naan rek ci nag di chargé ñoo xam ne dañoo bëgg nërmee état de droit ci réew mi direct ni naan kon ab gouvernement gu taxaw temm ci état de droit ñëwaat ci réewum Sénégal la ñu am l'évidence yéene naan kon Bougane Gueye Dany nee la ngeen teg laa la wax la ñuy fee ndax du dëgg te naan leen ci l'exclusive yéene kaay xam nga kàcc moom boo ko tegee jaarale ko ci buntu soo duggee da ngay fekk dëgg moom ne faax a coowal Ousmane Sonko li Dakar Times naan maan Amadou Ba ma ngay xamle ni Sénégal ab état de droit la deesu nangu nag ku koy caxat-caxatee nekk ci réew moo xam ne danga naan saabu leen neexee ngeen taal saa leen neexee ngeen fay du fi amee maître Sidiki Kaba Ismaïla Madior Fall Antoine Félix Diome ak Abdou Karim Fofana waxtaane nan jafe-jafe yi nga xam ni moo am ci réew mi waaye nërmeel yi nga xam ne bëgg nañ ko nërmeel ak suuxal réewum Sénégal tribune yéen kaay naan kon bu leen leeree ne yeeyu leen kenn rek mu baax libération yéen kaay naan kon terewul ay ñooñu Ousmane Sonko ñu ngi leen di làq jant enquête bi wala ñu nekk ci contrôle judiciaire l'exclusive yéen a kaay naan maan ci coowal Ousmane Sonko lii naroon nañ ci nag rëppal direction général di wax ak grévistes yi bi lépp ña ngi koy daal di matale tey bu ngeen xëyee di wax waxi gréew bëgg andi coow la général ba Abdoulaye Diagne ma ngay xelu ña nga ñooy ñëw ci direction générale bu impôt domaine naan leen lañu liggéey démb ci wàllu taxe musuñu koo am daanaka téeméer boo jël fukk ak benn ya ñoo topp mouvement d'humeur bi te nag réewu démb gi amul lenn loo xam ne wàññi na ko ca nañ doon recouvrer recettes yi ndax nag syndicat bu liggéeykatu administration fiscale bi ñoom ci boppam ñoo toppul boobu le gréew moo tax nag démb li ëpp liggéey liggéeykat yi liggéey nañ l'exclusive yéen kaay nan kon ba fukki milliards ak ñaar tegu na ca la nga xam ni moom lan daan liggéey bés normal ca la nga xam ni nag fi mu ne nee ñu dañ leen cooy yóbbu ca cour pénal international la lii ay mbele mbele la wax ji wax ji mooy bës la ñenn ñi bëgg ci ñun Antoine Félix Diome naan wër ñu wër ndomb Ousmane Sonko mën na dañ ndànk-ndànk Ismaïla Madior Fall naan Ousmane Sonko nga tënku ca la nga xam ne moom la ñuy xaaree ci juge bi Abdou Karim Fofana naan manifestant yàq nañ waaye ba nii nërmeelul benn yoon ko koomu réewum Sénégal l'observateur mel ni ku naan kon bu ngeen xiiroog ŋaayoo ba nuppi ngeen wax ci réewum Sénégal ak i jafe-jafeem ñetti góor ca kër Momar Sarr bokk na ci ñaar ñoo xam ne dañoo ami soxna ñoo jël benn soxna soo xam ne dafa am borom kër daal di koy takk daal ngay sàkku ku yéeg jox sa moroom lii loo ci mënti déggit mooy ñaawteef yi nga xam ni moo na a na mel réewum Sénégal ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm ca yendoog jàmm taane soxal ponk boobee sax ñu ngay xam ne ne kon ab l'enquête ubbi nañu ko ngir nag situer responsabilité yi leneen la ñu waxtaanee bokk na ci kër Ousmane Sonko ba nu wër ndomb blocus boobee ñu sa def njiital euh, Pastef moom Ousmane Sonko si sa kër góor gi ministre de l'intérieur am na ci ay andi na ci ay leeral nee na lu ñu sa jublu du lenn lu dul bañ trouble à l'ordre public nanu ko nemmeeku woon du ñàkk sa diwaanu Ziguinchor ñu ànd a seex Fatoumata Diop Abdou Malick Thioune ginnaaw ñaari ay semaine ci événement yu métti yi amoon fii ci Sénégal njiital gouvernement bi ak yenn ci ministre yi di justifier ay précision ñu indiwaat ko ci blocus bi nemmeeku buntu kër Ousmane Sonko. am na ñoo xamante ni bu ñuy liggéey chaque jour sax mun nañ am problème mu dépense parce que du ñëpp ñoo am possibilité toog sa kër ñu indil la ravitaillement wala ñu indil la ration wala ñu dajaleel la cotiser la ci Kopar Express à l'époque am na ñoo xamante ni bu ñu xëyul dem daan seen doole dugg def seen liggéey du ñu am lu ñu dundee léegi nag loolu yëpp ñu ni kenn du ko wax te loolu yëpp ñu ni kenn du ko lijjanti gouvernement wu Sénégal du fonctionner noonu soo jógee nag ni lu ma neex lay def ak fu ma neexee et du ma def déclaration damay def rassemblement ba ay nit faatu ci ay la yéwén il faut que gouvernement bi jël ay responsabilités ndax yokkute dinañ ko nemmeeku ci njëgu dund gi ak événement yi passé jëwriñu ilimaan yi di dalal xel yi ñëwaat ci déficit xar ci yu tabaski bi à l'approche de la tabaski effectivement il y a souvent une pression sur les prix parce que la demande est très forte sur certains biens et services donc euh, le ministère du commerce est en train de suivre euh, l'objectif du gouvernement c'est de veiller à ce que les prix soient stables qu'aujourd'hui le marché est approvisionné il est difficile à Dakar. Mais globalement, en tout cas jusqu'à hier, le marché était excédentaire de de 30 000 moutons comparé à la même date euh, l'année que l'année dernière. ab l'enquête daal dinañu ko ubbi ngir mën na rek situer responsabilité yi ak ñi faat bakkani manifestant yi naka noonu itam nee nañ loolee tax na gouvernement bi tey la gën a déterminé wu tey dinañ yóbbu ñëpp ci yoon ñi nga xamante ne dañoo laale ci mbir mu ni mel. Fatoumata Diop gouvernement bi bi ñu leen laajee ani lu tax Ousmane Sonko ba léegi jàppaguñu ko donte dañu ko àtte par contumace euh, jëm ci coowal euh, digganteem ak Adji Sarr tontu na leen rawatina kii di euh, ministre Ismaïla Madior Fall nee na ba fi ñu tool nag décision de juge boobee nga xam ne daanaka moo teg ay daan ca kawam kenn notifié ku ko ba noppi it dispo loolu notification boobee disponible agul en tout cas ay kàddu leeral la mu ca andi moom Ismaïla Madior Fall dana koy teewlu. premier élément il faut que la décision lui soit notifiée. Il faut que la décision lui soit notifiée. La décision est en cours de réaction par le juge. Et nous, il ne nous appartient pas de dire au juge, allez, faites vite pour votre décision. Non, c'est la justice sénégalaise qui fonctionne. Elle est indépendante. Elle fonctionne à son rythme. Donc, il faut que la décision soit disponible. Lorsque la décision est disponible... mu ngoog ñu jégalu ci kàllaama nasaraan bi Ismaïla Madior Fall ba mu daanalee ay kàddo maître Sidiki Kaba jëwri ñu dénk l'armée bi dafa tontu euh, ba ñu ko laajee sa ña nga xam ne nee nañu dañu jël xeex bi yóbbu ko sa cour pénal international nee na neexul ba neex waaye ñooñu nag la wax dafa mel ni xamuñu ko moom maître Sidiki euh, Kaba ay kàddoom la ñuy teewlu. benn bi mooy yàqu turu Sénégal loolu tamit mënuñu ko def ndax Sénégal dafa yàgg nag état de nekk démocratie yàgg ci loolu ñu reconnaître ko deuxième élément bi nga xam ne dama ci insister cour pénale internationale doo jóg nii di wax ne que dinaa def lii ce n'est pas possible ñi ko mën a def mooy état yi nga xam ne ñoom ñoo ratifié li nga xam ne mooy le statut de la cour pénale internationale Sénégal moo jëkk ratifié loolu statut soo demee laaye danga nga am fierté parce que drapeau drapeau yi fa nekk drapo Sénégal moo jiitu tous les drapeaux lu toll téeméer ari ñaar ak ñaar fukk ak ñaar drapeau mu ngoog gouvernement bi daane lay kàddoom ñu pare seen point de presse njiital gëm sa bopp daal di jël moom it jàkkaarloo taskatu xibaar yi démb ci guddi mu ngay xam ne ne moom ilimaani jëriñ bi ay jëriñam démb daanaka waxuñu dara lu ajum ngooñ waxuñu dara lu nga xam ne lu leer la te wax nañ lépp sauf dëgg gi nga xam ne askan wi moom la ñuy xaar ci ñoom ndax nag nee na moom bugaan geneen lu muy njëkk laaj moo di commission d'enquête ba ñu ubbi woon ba ñu waxoon ne kon ba ñu annoncé woon ci ci événement mars 2021 a xam ani wala ku faat fukki doomu aadama ak ñeent yooyee li xëddeen waxuñu si dara lu leer moom Bougane Gueye Dany ay kàddoom ñu teewlu ko. Ousmane Sonko dafa nekk en prison Ousmane Sonko dafa nekk en résidence surveillée loolu mooy dëkk ñun ñi dëkk kër góor gi yéen ñi ñëw kër góor gi gis ngeen ne ñun ñi dëkk kër góor gi dafa am ay yoon yoo xam ne ñun mënuñu fa jaar ñu fatt mbedd yi. tey jii xale yi bu ñuy génn di jàngi école wala ñuy am fu ñuy jaar dañu leen di taxaw di xool oto yi di vérifier oto yi ñu mel ni ñu nekk ci état de siège pourquoi parce que Macky Sall moo ko décidé parce que Macky sàll moo ko bëgg dégg nga le ministre de la justice Ismaël Madior Fall le tailleur constitutionnel dégg ngeen lu mu wax nee na amul décision de justice pour ñu def li ñu def Ousmane Sonko. waaye nee na décision la bu ñu jël pour maintien de l'ordre c'est eux qui sèment le désordre à Kër Gorgui c'est Macky Sall qui sème le désordre au Sénégal muy kàddu yu Bougane Gueye dañuy doon dikk ci situation bi Ousmane Sonko nekk ca këram nanu ko wëree ndoom bax nag dafa mel ni mi nga ca kaso ba te yóbbooguñu ko sa kaso moom Bougane Gueye dañuy nee na Amadou Ba ay jëruñam neexul ba neex waaye lu ñu bëgg a fàttaloo askan moo di nervi yi nga xam ne ñoo ko fi doon euh, jàmbat te nag vidéo yi ñu wane nervi yooyu nekk seen pegg loole ci boppam lañu war a andi lu leer moom euh, président bu gëm sa bopp nee na loolee nañ seen di lu leer nag ndax wax fa dëgg neex yàlla loolu dafa ëllëg bopp askan wi Bougane Gueye dañuy njiital gëm sa bopp enquête yow ñi rey yàgg say force de sécurité ñoom ñoo doon ànd vidéo yaa ngi fii ñëpp gis ko cinquante pick mën naa wër biir ndakaaru te nit du ko gis cinquante pick yu yàpp ay mbër ak i nervi mën nañoo wër biir ndakaaru di tambal mbalu ñëpp di leen gis moom Antoine jom mu ne gisu leen il faut ñu def enquête il faut qu'on respecte le Sénégalais ku ne xam na ne ces nervi là fii la ñu doon jóge ci siège APR yéen ñi journalistes yi ku ne ci yéen gis na image yi li ci des nag mooy sénégalais bu nekk dina jël responsabilité parce que wane seen métit wane seen bañ nooteel wane seen jafe-jafe ci réew mi ah kenn duñu ko tere kenn mënuñu ko tere te nag kenn dong la yoon may pour mu def liggéey boobu mooy les forces de défense et de sécurité ces force de défence et de sécurité bu ñu deful liggéey bi nga xam ne ñoom la ñu war def keneen ku wàcc ci terrain bi yéen ñi may waxal yéen jàmbaar yi yéen gaynde yi xam ngeen li may wax ku ngeen ci gis defal leen ko bagage c'est très simple yëf bi dootul gat sa gat sa ñafal ñafal lay doon mu nekk wax joo xam ne ñoom la ñu bëgg ñu dugal ko ci seen nopp ayca mu ngoog euh, Simon Simon Faye mu mel ni kon nag euh, dégg nañ gouvernement bi wax na euh, Bougane en tant que moom it nekk ci opposition bi wax na dafa jàpp ne kon information yi nga xam ne joxe nañ ko dara mujje waaw sur la forme d'abord parce que conférence de presse la ñu gis après point de presse euh, tout de suite d'ailleurs après bi premier ministre ak itam pare donc loolu également mooy pouvoir ak opposition ku ci nekk da nekk sa parce que nguur gi quand am na responsabilité ci li nga xam ne moom moo xew parce que réew maa ngi seen loxo force de défense et de sécurité yi mi ngi seen loxo li xew également dossier judiciaire mi ngi ci loxo nguur gi mi ngi ci loxo justice te nguur gi da ci am wàll à travers le ministère de la justice mi nga xam ne moom moo boot le parquet donc loolu également baax nañu koy souligner pour mu leer ci ñëpp de l'autre côté également on a vu l'opposition peut-être tout de suite immédiatement euh, euh, le le le euh, le le point positif wala bokk le premier point bi nga xam ne Bougane moom la marqué euh, maanaam tout de suite après la conférence de presse dégguñu beneen réaction dégguñu euh, classe politique bi wax moom la ñu dégg mu wax te def naa li mu wax mën nañ ko jàppee nii peut-être li opposition bi yëpp mënoon a wax parce que daanaka li mu fi wax moom également mën mënees nañ ko dégg te wax naa ko sànq lii nii nga xam ne gouvernement bi teg na ko tey jii ci kanamu askan wi bécc ko ci penc mi tey jii nekk na loo xam ne peut-être lu ci bëri déggoon nañ ko rawatina la commission d'enquête bi ñu waxoon en avril 2021 euh, juste après les événements du mois de mars waxoon nañ ko mais commission boobu ba léegi gisuñu ko euh, ñu ñëwaat démb annoncé ñu beneen enquête boo xam ne ne dinañ ko def pour yëpp yi gën a leer képp koo xam ne sa loxo takk na ci wala setoo ci nga euh, digle kooku yoon loolee également euh, peut-être beneen situation lay doon ce qui veut dire que la ñu waxoon démb comme defuñu ko pourquoi ñu war leen mën a gëm ci lii ci tënk daal peut-être loolu Bougane Gueye Dany bëgg a joxoñ leen wax leen par rapport ak li nga xam ne moom moom la ñu wax démb beneen cas bi muy kaawu Ousmane Sonko mhm. Ousmane Sonko également peut-être kaawam fii euh, euh, xëy na yoon moo jël dogal yoon pas forcément yoon bi ko àtte ci wàllu devant les tribunaux mais peut-être ñi nga xam ne ñoom la sécurité publique nekk seen loxo parce que ñoom ñoo fa yebal police wala xawma gendarmerie ñuy garder këram ba Ousmane ko mënul dugg mënul génn dugg na ci biir ba pare mayetuñ ko mu mu mën a génn loolu nag ak seen i explication bopp mais est-ce que mën nañu ko convaincre nit ñi ci ci ci loolu est-ce que euh, lii d'ailleurs mos na am Sénégal peut-être bu mosee am Sénégal it xaw ma xaw ma mën naa juum nag mën naa juum ci sama analyse mën naa juum également ci sama gis-gis mais pourquoi la personne de Ousmane Sonko nga xam ne depuis lors également am na yu bëri yoo xam ne mu ngi koy dal di ko dalaat ci loo xam ne peut-être digganteem la moom mi nekk ci opposition bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi à travers bien sûr un dossier judiciaire donc loolu également day tax ba débat bi nga xam ne tàmbali na depuis lors débat bi je pense que pënd ba wuréegul parce que ku ci nekk fii mm-hmm. ak say vérité bopp ku ci nekk ak say dëgg bopp est-ce que dina tax ba mbir mi je pense qu'il faut y aller avec sérénité et sérénité boobu dafa war ci gouvernement bi ci ministre de l'intérieur ci ministre de la justice essentiellement sérénité boobee mooy mën a tax peut-être ñu mën a poser ay actes forts mais tant que gouvernement baa ngi ci position de dilatoire tant que gouvernement baa ngi annoncé ay enquête yoo xam ne après du mujj fenn tànk gouvernement bi mi ngi bàyyi ay mbir yoo xam ne jàppuñu ci kenn ay bakkan di ci rot dara amul topp ci kenn condamné wuñ ci kenn juste indignation la la lay doon je pense que dinañu gën di wax mais également kenn du bàyyi xel ca la ñuy wax pour ne pas dire que kenn du leen gëm parce que li ko jiitu li jiitu woon moom moo tax te loole moo fi ne ba léegi na ñi nga xam ne ñoo ñàkkoon seen i bakkan ci mois de mars 2021 ñu waxoon ñu enquête après enquête commission indépendant mhm. mais mujjewul fen tey jii ñu waxaat ñu leneen man yaakaar naa ne également du mujjee fen parce que fii également li ñu mën a sóoraale waat mooy am na yoo xam ne tege na fi déjà ay vidéo peut-être même ay photo yoo xam ne askan wi ci boppam ñi doon peut-être seetaan manifestation yi ak ñi doon manifester ñoom ñoo ko def publiquement donc c'est des euh, bu dee mën naa ko tuddee ay pièces à conviction euh, mi ngi fii ci penc mi la police am na nag lu mu ci joxe comme version gouvernement bi démb joxe na version opposition bi joxe na version presse bi def na la mu ca mënoon ci liggéey ba ci presse étrangère bi léegi nag des na nag le peuple s'attend à des actes forts yoo xam ne mooy mën a tax ba peut situation bi bés bu ñu koy fàttaliku ñu ne kat ah diw de takke woon na ci yoon nii la defoon ak moom mais dinañ toogaat fii ak 10 ans dara du sotti après yeneen xewaat muy continuer noonu et ce serait dommage. alors foofu nag da nga bokk si ñi xam ne dañu rester sur leur frein par rapport ak sortie gouvernement parce que également xam nga dafa am lu ñuy tuddee communication de crise bu crise amee